Ramadan bismillah barkib Serigne Saliou asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa mbokki fondation sopp Serigne Saliou jërëjëf Serigne Saliou jërëjëf Serigne Saliou jërëjëf Serigne Saliou liggéeyal Serigne Saliou moo ñu tax te xam ne jamono jii ñu toll de ku ci liggéeyul sëriñ bi te jaamu woo yàlla perte nga fondation sopp Serigne Saliou Mbacke lëkkale ay ndaw di ay soxna ak ay góor yàlla fasantikoo ci fukki gox ak ñeent yi nekk ci biir réewum Sénégal ba dem bitim réew am benn yéene liggéeyal Serigne Touba Cheikhul Khadim jaarale ko ci Serigne Saliou lii moo waral turu fondation sopp Serigne Saliou bin ko sosee ak léegi toll ci ñaari at manqué tuuti seen jëf ak seeni jéego ràññeeku lool ci liggéeyal Serigne Saliou boobu nga xam ne nii mooy seen itte saa su nekk. ci ndaje mu am solo mi nga xam ne nii kuréel gi féete Bawol nekk diggante Mbàkke ak Touba doon nañ ko amal fàttali nañ ñu tuuti ci taarixu kuréel gi di fondation. sopp Serigne Saliou Mbacké. fondation sopp Serigne Saliou ci historique booy xool moo ngi ba mu tàmbali léegi mën naa ne amagut ñaar at ba ñuy tàmbali ci ab groupe ci ci page Instagram la tàmbalee ñaari ñaari mbokku taalibe yoo xam ne nii kenn ki di wuyu ci jëwriñu Serigne Saliou Sow keneen ki di wuyu ci turu Soxna Faati Mbay di jëwriñu soxna yi fii ñoo dajaloo woon ci benn page Instagram di liggéey bi ñuy liggéey ñu nekk ñoo xam ne dañoo am bëgg liggéeyal Serigne Saliou ci lañ neexee ne def groupe WhatsApp. bu ñu ko defee groupe WhatsApp muy gën a élargir ba tabbal ci jëwrin gi nga xam mooy jëwrin université di jëwrin Ibrahima Mbodj ci lañ ko ci lañ ci ko taxawale ba tey jii mu nekk fondation Sopp Serigne Saliou international ci la ñuy dox di dox dox ba liggéey bi dem ci ay zone ñu xam ne kat lim bi ni mu toll mënuñ koo def ci benn groupe WhatsApp ci lañ ne nañ ko def ci ay zone mu nekk zone Touba zone région Sénégal yëpp am nañ zone ba ci département yi sax communauté taxaw rek mooy zone Brésil fondation sopp Serigne Saliou Mbacké aw doxalinam ñu méngale ko ak waayu jamono ci jëfandikoo li nga xam ne ni moo di waay xarala yi rawatu rawatina lu ci mel ni réseaux sociaux yi mën lañ cee lim Instagram Facebook ak WhatsApp loolu tax na nag yaatal lañ seeni bangaas bàngaas mbooleem fukki gox yi ak ñeent ci réew mi ba bitim réew fu nekk taxawal nañ fa bàngaas diweel liggéey bi nga xam ne ni saa su nekk du dañ mukk di ko liggéeyal Serigne Saliou Mbacké Euh, fondation Soppe Serigne Saliou nag lenn rek mooy seen bébét mooy liggéeyal Serigne Saliou Mbacké man naa ni fondation bi ñoo ngi ko créé le 24 septembre 2018 bi ñu koy créé aussi lépp moo ngi juge si Instagram euh, mu nekk deux personnes ku si mel ni soxna Faati di man mi taxaw ak Serigne Saliou Sow ndaje mi tak lenn rek moo ko waral mooy euh, di sàkku mbokk taalibe di gën a xamante di xam tamit fondation bi lan moo ko tax a jóg lan mooy seen mbébét ak lan moo leen tax a jóg. ngir daal di koy jëfandikoo ci anam yi nga xam ne nii neex na suñ borom sukkandiku ko ci njàngaleem yonent bi ak ndigley Serigne Touba Cheikhul Khadim ngir roy ci seen yaakaar seen soppe di Serigne Saliou Mbacké waaye jëfe ndigalal ki di xalifaam di Serigne Cheikh na Serigne Saliou tax na nag mbooleem groupe yi nga xam ne ni dafa lëkkale ndaw yi bokk ci fondation bi ñu tënku ci ay charte bokk na ci charte yooyu yi ñu leen di biiral ndaje mi booy xool kenn ku si nekk boo ñëwee dañ li nga xam ne moom lañ lay njëkk a wax nga respecté charte daara ji lenn bokk na si déguisement yi nga sol ko boo ñëwee fi ñu la yamloo nga yam nga yam fa jël say xasida di durus loolu moo war a fondation Soppe Serigne Saliou dañu am ay charte nekkuñu rek ci réseaux sociaux ci groupe WhatsApp di di def nu ñu neex wala di ci doxalee nu ñu neex ndax réseaux sociaux day nekk loo xam ne day jël ay dafa dafay laaj mémoire interne mais ci loolu dañ ko canaliser dañu daam suñu règlement règlement yi moo ngi nekk ci 14 ci mais bi ci ëpp solo comme que ci réseaux sociaux yi nga wax mooy bi xam ne ni dañu ne ci ci groupe boobu ñu nekk kenn du fa tabbal audio kenn du fa tabbal vidéo kenn du fa tabbal image muy coloration politique wala religieuse lépp lu ñu fay tabbal day nekk ci ndigalu waa communication. gannaaw bi ñu lëkkalikoo ci charte yooyu yaatu lool ci biir réew mi bu bitim réew. dañuy amal ay jëf yu am solo ci at mile ngir dundal wéyal seenub liggéey bokk na ci jëf yooyu nag. ziar bu ñuy amal at mu jot ci kanam ki nga xam ne nii moo di xalifa Serigne Saliou Mbacke di Serigne Cheikh ibn Serigne Saliou yàlla na fi yàgg lool te wér ziar boobu nag ñu ngi koy dëgmal ñaar fukki fan ak ñett ci weeru août 2020 loolu nag bokk na ci li sabab ndaje mi ñu amal tey jilee suñu teewaay fii nag mooy di waajal suñu ziar bi le 23 août incha allah loolu moo waral teewaay bi ñëw fi di durus di jàng xasida jàng alxuraan def ko addee Serigne Sall waxtaanaat gën a booloo gën a xamante loolu moo ñu indi fii tey. waaw xam nga fondation Sopp Serigne Sall ni ma wax boo xool fondation dafa xaw administratif chaque année de route fooy de route boobu noonu bi ci bi ci njëkk mooy rencontre yi comme bii ngeen ñëw nii waa Touba di def rencontre yooyu dañ koy amal chaque ñaari weer pour dajale mbooloo mi ñu gën a nga xam liggéey bi ni muy doxee waxtaanee fi ndigalu sëriñ bi jàngi fi ay alxuraan durus fi ay xasida def ko addiyey sëriñ Saliou jox fi benn tem waa culturel ñu jàng ko waat fi mbooloo mi ci beneen point am na lu ñu wax ndogu yi ndogu yi nag ren jiwrin fondation Sopp Serigne Saliou lu am solo ndax dañoo nekk jamonoy pandémie muy jamonoy coronavirus fondation Sopp Serigne Saliou jël seen i addiye mu mu toog toll ci ab lim dem jébbal ko Serigne Cheikh moom Serigne Saliou jébbal ko ko ne ko Mbàkke kat dafa ni nit dañoo fàtte dongay tu taalibe yi ci jamonoy bii ñu nekk def ko barkeelu ko ci ci ci ci ci jëf jooju noonu. bi ci ëpp solo li ci xam ne moom la ñu dëgmal le 23 août bii mooy ziar annuel bu fondation Sopp bi nga xam ne ñoo ngi ci deuxième édition bi ñu koy amal le 23 août bi di dajale suñuy addiyee fépp fu mu mën a ko Serigne Cheikh moom Serigne Saliou mu ñaanal ñu. ginnaaw bi ñu yaatalee seenub liggéey ci biir réew mi ak bitim réew tënku ci ay charte ak ay réglement yoo xam ne nii lépp ci njàngaleem sëriñ bi rek la tënku bokk na nag ci li nga xam ne ni moom lañ gën a bàyyi xel mooy demlante ak dikkalante jàppalante kuréel gi nag relation sociale bi ci am firndeel la ci. sonn yëpp am na kenn ku ne am na ku jiite social mooy moom la ñu naan social yu ndaw yi yi nekk si biir sonné bu dee social bu mag bi nag dañ ko faa bàyyi pour sonn bu fa am social bu mag boo xam ne ëpp na la doole. foofu ngay dem si jëwni social bu mag ba muy jëwni si yax naa bisiri bu defee ñu xool kees gi ñëw ñëw dimbali la boo si néewee doole bu dee social bu dee sooni ndaw ndawaan yi nag maanaam li biir bi si biir daara ji ku si am problème si moom lay ñëw même bitt bi yémanuñu ko si biir daara ji même bitt bi muy ren man mi jiite son tubaab rek li ma dimbali si bitti moo ëpp li ma dimbali si biir daara ji waaw même ay ordonnance ak biir daara ji lépp dañ si yëngu waaw ay néew di doole yi. ginnaaw bi ñu àndee ci dimbalante ak jàppalante tënku ci ay charte bokk na ci nag ay jëf ak ay mébét yoo xam ne nii kuréel gi di fondation sopp Serigne Saliou Mbacké am nañ ko. gannaaw yëngu-yëngu maanaam activité yu am solo yi nga xam ne ni ñu ngi koy amal ci biir at mi bokk na ci loolu ziar di daje di jàng alxuraan ak xasaayit di soññante am na yeneeni projet maanaam ay naal yu mëbët ngir liggéeyal ko Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacké. fondation day liggéey boo xam ne ci social la te ku wax social war a mën a wax ay projet ci ci loolu nag ñoo ngi ci étude projet yi ñoo ngi ci yoo xam ne nii ñoo ngi koy ñoo ngi ñoo ngi koy togg te murit ak ndigal biñ demee keroog ci Serigne Cheikh Mbacke di ko ñaanal loolu mu yàgg fi tuwér biñ ko waxee projet def na ni jox naa leen ci ndigal ndax projet benn mooy ñi nga xam ne nii ñoo ngi ci fondation sopp Serigne Saliou te nga xam ne nii ñoo ngi ci fondation sopp Serigne Saliou qualifié ci dara ta bëgg taxawal benn entreprise bu ndaw wala lu mën a doon rek fondation Sopp Serigne Saliou doole la ba nga mën a matale loolu projet it dafa gën a taxaw biir Xelkom dañoo bëgg bu suñuy mbébét attoo lépp loo xam ne nii ndax ñu demee barki dem rek ñoo ngi ñu koy sut ñu koy junj ci wàllum toole Xelkom yi bëgg nañ fondation Sopp Serigne Saliou taxaw fa taxawaay bu am doole ci ay ci domaine yëpp nag domaine boobu domaine sanitaire domaine domaine domaine habillement domaine ba yooyu yëpp ñoo ngi koy def dafa nekk en en en étude moo tax bëgguñu ci sore fondation Sopp Serigne Saliou Mbacké lëkkale ay góor yàlla ak ay soxna li ëpp ci ñoom di ay ndaw waaye ñi ëpp ci ñoom di ay dongoy daara seen yéene ak seen mébét mooy mbooleem fu daaray nasaraan nekk moo xam muy université lycée wala CM wala sax primaire kuréel gi di fondation sopp Serigne Saliou Mbacké samp fa ay bànqaasam jàppale ndaw ñooñu ci liggéeyal Serigne Touba Xaadim Rasul jaarale ko ci seen sang bi seen soppe bi Cheikh Salih Mbacke radiyallahu anhu. boo xool fondation sopp Serigne Saliou boo xool ñi ko ñi ko ŋànk sax boo xool ñëpp ay élèves lañ ak étudiants ndax ñëpp boo xool sunu sunu sunu jëwriñ rek universitaire rek amul cinq ans. waaw ñi ci ñëpp ñëpp man mii di wax ak yow étudiant la kon ñi ci nekk ñëpp ay élèves la étudiant mais aussi dañoo taxawal ci biir ay commission lu mel ni ay commission santé environnement pour ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllum santé ñoo ngi taxawal ay commission scientifique et pédagogique ñoo ngi taxawal ay commission culturelle te yëpp boo ko waxee day dugg ci wàllum njàng ak njàngale ci wàllum école nasaraan ak ci wàllu école daara te incha allah dañ ko gën a yaatal au niveau national kuréel gi di fondation Sopp Serigne Saliou Mbacké ubbi na ay buntam woo képp koo xam ne nii yéen a bokk yéene ak pas-pas di liggéeyal Serigne Touba Cheikhoul Khadim jaareel ko ci Serigne Saliou. pour nga dugg ci nag da jokk ci ñooñu soit nga def 77 860 52 87 wala nga def 120 59 46 wala nga def 77 887. 30 87 pour nga tàbbi si nag dafa am ab benn benn lim bu ñu lay laaj dañ lay laaj 2200 francs 2200 francs yi maanaam 200 bi mooy frais d'envoi ci serveur bi nga koy yónnee mais boobu noonu 1000 francs bi mooy sa xaalisu carte membre bi nga jël 1000 francs bi ci des moom mooy sa sasu weer nga dugg te 1000 francs boobu daa am ay pàcc yu ñu ko xaaj maanaam dañ ciy jël 650 650 yooyu moom la yóbbu au niveau de moom la ñuy moom la ñuy dajale 650 yi mbokk taalibe yëpp si 5000 membres taalibe yëpp mbokk taalibe yëpp dajale ko ci benn kees moom la ñuy ziare yi Serigne bi ci def dafa am lu ñuy yóbbu social national am na loo xam ne social nag bi lañ koy def pour nga xam ne ñoo ngi ci ci dëkk bi wala ñi nga xam ñoo ngi ci daara ji tax tam ay jafe-jafe yoo xam ñu dimbali leen ci lépp daal ci autour ça tourne au niveau de social. fondation Sopp Serigne Saliou Mbacké ni leen ko waxee ci ak njëlbeen lëkkale ay ndaw yu am benn pas-pas liggéeyal Serigne Touba ko ci Serigne Saliou jamono yi nag yaatu nañ lool ci biir réew mi ak bitim réew saa su nekk bokk na ci seeni jëf yooyu nga xam ne ni ñu ngi koy amal ngir mën a xamante mën a demlante ak dikkalante waaye lépp nag tënk ko ci njàngaleem sëriñ bi ndaje mu am solo mi nag ñu doon amal ci Touba ci Daaru naan lëkkale selil bi nekk diggante Mbàkke ak Touba ñu ngi koy amal nag ci jamono yi nga xam ne ni ñu ngi waajal seen ziar annuel ci kanam sëriñ Cheikh Mbàkke ibn sëriñ Saaliwu Mbàkke bis boobu nag ñu jàpp ko ñaar fukki fan ak ñetti ci weeru 2020 ndaje mu am solo mi nag gannaaw ban ko ubbee jàng xasaayit ci kuréel ñu ngi ko tëjee ay waxtaani diine ak soññee ci lu leen di xettal ak leen teg ci yoonu liggéeyal Serigne Touba Cheikhul Khadim di ñaan sax ci ba faw daje ci ak ngërëmal Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacké